thank you asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar rawatina yéen ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois tey nag ñu ñëw géejawaay ñëw seet si koo xam te ni champion la naam gëj naa bëre mais làmb namm na ko ndax ñi ngi ñëw ñi ngi ñëw fii euh, fekk ko ci salle de musculation bi muy tàngal yaram loolu moo won ni carrément moom ba léegi mi ngi ci biir làmb ji muy lees de tey nag ñu fekk si ko mu nekk école de lutte Balla Gaye ñu fas yéene waxtaan moom ci làmbam instant bi ak euh, làmb fi mu toll fas yéene waxtaan ak moom tamit seen bilan écurie ndax gis nañ ne école de lutte Balla Gaye bilan bi mu def léegi moom lan la ci xalaat dañ koy jox mu nuyo après ñu continuer waxtaan bi lees maa ngi leen nuyu waa asalaamaaleykum Fatma Dia asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa Wasaare ñu ngi sant yàlla bu baax di julli sinant bi di sant waajur waaw di jaale waa Géejawaay waa Sénégal li fi passé muy sunu mag di sunu grand lépp muy Daouda Seck ñu ngi koy jaale waa Sénégal gi yëpp di ko jaale waa këram rawatina papaam ñu koy jaale tamit ah, galas bi nga xam ne tamit moo nekkoon ak ñun moo ñu wax ñu ko doon wax ay kon galas boucher ndeysaan xam nga moom moo ngi ba Espagne ñoo ngi ko koy jaale bu baax a baax di ko jaale tamit maam Mama Fall jaw xam nga grand Pape Dioum Moussa Fall ñu ngi koy ñu ngi koy jaale waa Sénégal gi yëpp daal ñoo ngi koy jaale waa yëpp bu loolu weesoo tamit ñu ngi am contentement tey ngeen ñëw fekkuñu fii si salle fu ñuy tàngaloo ma man ak sama doom day Maguette Seck ak Abdou ñu leen di dalal fii. nuyoo bi am na solo Less 2 làmb namm na la. parce que tey dañoo gis ni lees gëj nga bëre. mais ba léegi sa tur dafay woy ci làmb ji Less 2 ci lu mu nekk ba pare. waa dañuy sant yàlla rek ndax tey bu dee gëj nañ bëre te teewul suñ tur doo toog benn dimanche wala ñaari dimanche yoo déggul ñu wax ko si rajo yi wala si tele yi kon ñu fa liggéeyoon la si làmb ji ba tey ku jug bëgg bëreeg Less 2 tey damay toog di seetaan télé sax ndeysaan dañ may woo fu nekk Less doo jëlal ko jëlal diw jëlal diw jëlal diw ma non baax na naa entraîné rek. ku yàlla boole rek naa bëre moom mais liggéey nañ si làmb daal li nga xam ne tey jii suñu tur moom du gaaw a fay si làmb quoi ndax liggéey nañ ko vraiment. lees nga def ñaata combat. def vingt et un combat. ñaata défaite. six. li ci des yëpp quinze victoire waaw. macha allah quinze victoire. kon am na ay preuve yu jot a def si làmb te dañ koy sante yàlla tamit bu baax a baax a baax a baax a baax. tey tey am na si defet yi nga xam ne sax tey bu doon làmb tey ji la nii yëpp mun nañ ko wax tey mun na am ni ay victoire la doon doon. comme yan defet. non jaraatul ñu koy li parce que kenn mëntu ko kii ba mu lii te boo waxee day xaw a nu doog yeneen. Mhm. ak arbitre woon na victoire passé na ñoo ngi si leneen loolu lañ koy accepté tey tamit loolu lañ ko jàppee moo tax mu lim ñu limaale ko si defet bi. waaw mhm. mais les fan yi dafa am benn polémique bu judd. ndax nee naa la yow da ngaa gëj a bëre mhm. mais chaque jour sa tour day woy ndax ñu gis fan yi yow duñ du ma ne sax mais yow ak euh, mbëru parcelle Moussa Dioum yéen ñaar ban polémique ngeen am ndax gis nañu ay affaire mbapat kii daan na ma quatre fois cinq fois loolu nan la demee woon non Moussa Dioum moom ñun ñaar mosuñoo bëre moom mosuñoo bëre moom moom ñoom ñoo ñu jiitu si làmb dana ñëw mbapat ñu doon bëre moom mu doon arbitre mbappat yi mais day dem ñëw am na mbapat tey mën a Modou bu ñu tasee final Moussa Dioum indi Modou Lo est-ce que jaadu na moom mu arbitré ko te moom moo indi Modou waaw loolu jaaduwul loolu noonu la demee da mu wër taxaw fii du wax wax yi nga xam ni tey tey mag la te ñun ñëpp ay mag lañ tamit ay kilifa lañ xam nga li internet la loo fi wax daf fiy des kon bu buñ fiy wax nañuy xool wax ju rafet ñu koy waxante moom moo gën quoi ndax ëllëg dañuy am ay njaboot ñuy dugg si YouTube bi di tàpp muy génn te déggin mu du neex te ñun ñëpp ëllëg mun nañ dem ba bokkaat benn branche te bu ñu bokkaatee benn branche ñii ñu koy tegaat suñu doom yi di ko gis ñun bu ñu bëgg buñ même bu ñu demee ba àndaat suñu biir suñu doom yi du leen neex parce que kenn ku ne bëggul ñuy wax sa papa dara lu ko naqadi wala dara lool moo tax bu ñuy wax ci internet yi nañ koy xoolaat bu baax te ñuy xool li nga xam ne mooy dëgg ñu koy wax loolu moo am solo boobu noonu la demee woon mbapat la woon bëri nañ mbër ba amoon na coow nee na wàññeeku na am na leneen nu mu ko waxee démentir naa wax naa na mu demee wax naa na mu demee parce que am na lu mu lu mu dem tëb sax parce que jour boobu noonu demi Baye daan naa ko demi final quart de finale Baye Peul dama ko yoon parce u dóor suuf daan da quart de finale te yooyu yëpp waxuñu ko mais du dara mbapat man jàpp ma ko woon muy dara comme nu ma ko waxee woon mbapat da ngay dem compétition la woon pour nga dem yokk sa doole yokk sa niveau si bëre ndax ñi ngay bëree chaque jour sa écrit da ngay dem ba am ñoom ñëpp seen bëre boo demee ba sa si ñoom dangay ngay génn dem bëri jëg ñi si biti pour yokkaat sa xam-xam bëre waate ñu la ëpp doole ñi nga xam ne bokkul ak doole bu nekk si écrit loolu mooy mbapat mais malheureusement nit ñi léegi mbapat sax dañ koy jàppee sax si ay palmarès te bokk jotawul ak dara arrêt kon sinon bu doon palmarès mbapat dëgg rek la kon mbërum ah, ñu nekk adresse ngoon ñooy raw si làmb wala boog ñaata nit la ñuy daan par jour pour jël drapeau kenn xamul nu mu toll. mais mbapat leneen la da ngay dem yokk sa doole am na yeneen la gañaayu si amaat ñun trois jours lañ daan def mbapat su ma ko finaaloo trois fois wala quatre fois mbapat yooyu noonu at bu ne su ma ñëwee finaalu ko kon du woon hasard nekkul caaxaan ma doon yóbbu ay finaal. mais nag nit ñi sawaay dañ lay gis ni euh, xool la benn kanam gi wala benn su ma neexoon ma mel comme ñëpp mun am na am naa caractère am naa mauvais caractère comme ñëpp parce que am naa fi nga xam ne fu ma bëggul nit egg ma fa du fa àgg bu ma la xoolee sax nga xam lu ma la bëgg wax mais dafa am ne am xam ne adduna bi dara jaru ko gis nga àdduna bi fii lépp lu fi rafet rek yàlla la yàlla lépp léppam teraanga la léppam rafet lépp lu fi ñaaw rek ñun doomu adama yi ñoo ko ñaawal kon nañ koy defaraat di ko rafetalantaat surtout ñun mbëri ñuy waxantaw lu baax suñu biir ndax ëllëg dafa am tey ku xool per Mbaye Gueye xool per Double Less xool tey ay Tafa ay Tyson ay Yékini ñooñu yàgguñu tey ñoom ñoo ngi commencé ànd seen biir xam man léegi di commencé séq am ñu ko woon séq mais xam nañu bu démb doon tey dinañ doon benn bu démb doon tey dinañ doon benn parce que kenn ku nekk yaay sa trésor moroom comprendre ga tey Balla Gaye Modou Lo Gris Bordeaux Eumeu ay lees de Eumeu Sène ñëpp ñoom Elton ak gaa yëpp tey mbër bu ne fu mu gis sa moroom da nga ko war a jox loxo na ko mbërkat yàlla nga gudd fante wér xam nga lu waral loolu parce que kenn ku nekk yaay yaa tax sa moroom di am xaalis tey su ma fayee ko Maguette Seck moo tax Maguette Seck bu fayee ko man maa tax. tey bu dës amuloon woon du am. du dëgg bu dës feeñul woon. njariñu pee du feeñ bu ndaara feeñul woon njariñu pee du am du am kenn du ko gis kon dañuy wegante fokkante joxante cër loolu moom mooy àdduna ndax lu mu métti métti métti làmb sport doole la te sport doole ndaw la comprendre nga fuñ ñu ngay dangay ngay xëy rek sa doole day jeex tàkk bu jeexee nag da ngay obligé waat bu fekkoon daf fekkoon nga aju aju bi yenn yenn niveau yi ba nangoota woon nekk ak kenn bu sa doole jeexee si sa ba jeex nooy defaat doo mën a wàcc du gaat si biir nit ñi kon nañuy wàccee suñu bopp ànd ak ñëpp ñun ñëpp ñu nekk benn loolu mooy àdduna. Mm-hmm. message bi am na solo wax dëgg yàlla ndax euh, kon ni nga waxee rek àdduna amul solo dafa jeex ba pare kon noonu ko gars yi di waxee. mais lees euh, euh, bi mooy sa ñaata année blanche parce que ñu bari yaakaaroon ne ren moom di nga bari. parce que am na ay combat yu ñu la kii woon mais euh, mën nañu wax ni corona bi moom moo empêché lépp mais sa euh, ñaata ñaata at nga toog année blanche. Euh, bu ma ko calculer daal parce que man defaroon naa sama licence ak yëpp mooy man commencé woon naa di préparer mm, macha allah amoon naa combat sax ba mu taxaw net. muy man ak ama neex. am a neex. waaw ñu waroon ko bëree ji Mhm. quoi ñu waroon ko bëri ci Canada comme lu may wax rek naan la fii yàlla lépp lu muy léppam teranga la waaw adduna lépp teranga la leneen lu si des yëpp lu si bon rek su la am ay ñu rocceeku dem si promoteur bi mhm. ne ko lees ak ama neex ay gaañ lañ te yàlla xam na ne billaahi wallaahi taalaay xaw ma sax luy numéro ama neex mhm. barki alxuraani karim làmb ba lamb la ñuy mbëkkante nii pour stade te man c'est rare sax laay dem lamb kon ku def loolu def nga li nga xam ni defoo ko kenn sa bopp nga ko def yàlla lu mu gën a bañ mooy nit nangul nañ ko lépp ni julli dina ko def ba mu des fen fen rek la ñu wax mooy yëngal aras kon képp ku def loolu sa diggante ak sa borom la yoonu lees nekku si. mais yow lees kan moo la wax ni am ku dem wax ni yéen ñaar ay gaañ de. promoteur bee ma ko wax promoteur bee ma ko wax. waaw après ba mu demee ba si biir xam na ne loolu amul ndax combat bi day taxaw juste bu muy taxawee ba ñu wax bay tënk la sam papa feebaroon man ma nekk diggante hôpital ak li ba ba muy de ñu nekk si ba ba mu ba affaire bi passé laa ko woo mu ne ma ah mujj naa taxawal laa bëggoon taxawal diw ak diw mais parce que dañ ma ne ma yow diw ay gaañ ngeen yéen a bokk sax écurie ma ne ko diw mu ngi dëkk ba Tëngéej man maa ngi dëkk ba Géejawaay jotu jotewuñ dara mais nag nit ku nekk sa ngay jël te finalement donc ba ma demee ma ne bu fekkee loolu la ñun ñëpp nañ toog ñu seet ñu toog ñu xool seetaan ba xam lan moo nekk si wor waaw bu fekkee nit da ko defoon ngir ngir kooku bari pour éliminer ma ñu xool ba xam dina am. billaahi wallaahi taalaay laajal booy am na benn booy nii laa ko waxee ñu toog da xëy toog rek yow affaire yi yëpp wàcce ku si kaw nit ñi ba tey doo ko dégg mu ne ñu ne am na. bu dee moom moo gën si ñoom yàlla nañ ko yàlla jox man lool parce que lu ma yéene sama bopp laa yéene ñëpp mais. ne ñuy sàmmonte kenn ku ne li ngay yéene sa bopp yéene ko sa morom. mais kooku lu mu ah xaw ma lu mu si jublu de parce que moom moo ko wax xaw ma lu mu si jublu. de est-ce que tey jaru woon tamit bi. Hmm. yow tey ngay tëgg ak ama neex mu nekk mu nekk affiche bu neex. yow nga ne yow da nga promoteur la. war ngaa xool ñaar ñu bokk écurie ak ñaar ñoo xam te ne ay xarit lañ. parce que ko baaw dafa jaadu. waaw parce que ñooñu duñ ay gan lañ si làmb. xamuñu du bari si làmb. parce que làmb yi nga ko doon jëlee fii waroon ko yóbbu Canada mu war a nekk le 5 comprendre nga le 5 avril bi passé la la nekk ñu wax nañ ba tënk ba nekk si dernier réglage yi si la loolu am te man boobu aw moon jot tamit pour euh, pour taxaw di clarifier lu bare affaire yooyu noonu di justifier ak yooyu parce que dafa war day nuru leneen boobu sama papa baa ngi gaañu maa ngi nekk si dëj maa ngi nekk si leneen au passage ma koy ñaanalaale yàlla yàlla xaare ko àjjana moo sama yaay yëpp di leen ñaanal fee ñu nekk mu gën a leen fii ñu jugee incha allahu rabi daal yal nañ yàlla defal jàmm ñun ñëpp daal loolu moom moo am solo ndax ñun Sénégal réewu teranga rek la jàmm rek lañ xam xamuñu leneen même buñ ko bëggee sax mënuñu ko ndax du suñu jikko lool loolu moo am solo quoi. année blanche. waa dama bëree deux mille deux mille treize laa bëreeg Baye Mandione ah ba 2017 non 2013 laa bëri qualifié daan ko mënu ma am combat ba 2017. laa bëreeg baa ma ñoon bu ma amoon combat ba fu ñu toll nii si waaw. mais dafa am benn moment boo xamante ne da nga yéegoon. waaw torop sax. yor flambeau bi. nga wàcc. ndax gis nañ sa combat ak booy Niang te Boy Niang instant bi mi ngi lëmbe lees Less retard bi donte def nga ay année blanche. est que nekkul ni mbër yi ngay bëreel. si bëri yi lay bëreel la wala ci lees la. no du si mbër yi. du si Less. du si kenn dama naa ni mbiru yàlla rek la. dama bëreeg Boy ñaa dama bëreeg Garga laa bëreel daan ko war a dem yore beneen niveau mais noonu la yafa mbëri nga xam ne man ñoom laa war a bëreel mais duñ nangu bëreeg man comprendre nga période yooyu noonu ba mu bëreeg Boy ba pare ba ma bëreeg euh, Garga ba pare aw ma woon yoon ci Boy Niang ah. mais su ma ko jëlul damay anewaat balance comme li may dal nii comprendre nga loolu laa doon bañ jamono yooyu noonu ba mu ko jëlee tamit gis nga yem ma sa fekk après dañ koy sant yàlla di ko ñaanal ndam loolu mu am si man tamit mu nekk lu ko jig mais après tamit gis nga jël naa fi kolifa yi daan ko boobu kolifa ba mu koy jël boobu moo gënoon danger gars yi fii yëpp parce que kenn da ko woon jël ma jël ko daan ko mais mënu ma a amaat combat mënu ma waat amaat combat mënu ma waat combat dama obligé ba muy bëre baa mu ñoon damaa wàcce dem jëli waat ko ndax ba muy bëre baa mu ñoon baa mu ñoon boobu kolifa yi daan na ko ak ñeneen yëpp boobu mais foog ma bëre mënut a ñàkk foog ma bëre ma dem jël ko yàlla joxaat ma si ndam mais gis nga dootoo bëriwaat ay mbër yi dañ lay wax ak doo du ma benn mbër nag quoi mais dañ lay wax mbër yi nga xam ne tey da xam ne ñii toog bañ a bëre sax des fois moo koy gën mhm. waaw noonu noonu la demee moom moo war a année balance yi yëpp at bu ne nañu proposé may combat at bu nañu proposé may combat mais combat yi muy proposé da dul combat yu muy gënal mhm. comprendre nga tey doo jógee si kaw wàccaat ba suuf nga da ngay ngay jël si nga xam ne boo leen daanee ñu ne wala war na ko daan bu la daanee nga nga comme lu la dal si boo ñaam moo lay gën a pëtëx dugg si kii yooyu nag moom c'est à éviter léegi fu ñu toll nii parce que tollatuma si lam fi nga xam ne war naa asal asaaloo sam bopp wala may saraxe sam bopp képp ku ma si bëreel dama jug pour daan la jëluma benn mbër pour may la chance wala pour may la yoon boo jàll comme bu mu si jël dama koy na sérieusement def si lu ma si war a def yëpp parce que yabuma ñi nga xam ne ñoo nekk sama ginnaaw dafa am ay nit yuy sonni si man bu dégg bëccëg ñaa xam ne bëgguñu benn yoon ñu dégg si man lu ñaaw tey ku si mel ne Pape Mama Fall ku si mel ne Dieye Sène ku si mel ni Masser Fall ku si mel ni Cheikh Sow ku si mel ni Baresi ñoom Abbas sama gars yi foofu sama gars yëpp tey bëgguñu dara euh, bëgguñu dara li nga xam ne mooy sama avancement moo tax lépp lu mooy jël dama siy teg sama bakkan te dama koy xool tamit ba xam lu ma jël lu muy doon ndax tey bu fekkee boo boo amee bu buñ la fayee diis ñoom ñu jëlaat vingt si kooku looyu dugg dafa war a leer parce que ay magum jëmm lañ ay kilifa lañ te ñi nga xam ne boo jooyee tey ñu jooy loolu moom moo tax sama kóll ngor googu ak kóllëre boobu noonu loolu lay sàmm. mais léegi est-ce que tamit ndax yow yaa ngi Malick Niang di ngeen xaw a bokk feebar ndax yéen da ngeen toog di taamu di taamu di taamu. ba tay li ndax ndax yéen seen année balance yëpp nag wax dëgg yàlla yéen yéen a ko teg seen bopp est-ce que jarul ne ngeen bëgg comme que da ngeen a xewatul tuuti donte yéen a ngi indi ay booy nga jël benn combat boo xam ne xaw a ko tuuti sax même boo ko kiiwee sax ah lamb lamb da am foo toll fi nga xam ne moom amatul xew ak wala bañ a xew. mais année blanche dafa bari. non mënutoo ñàkk parce que xoolal suñu génération laa la wax tey boo ko doon lim ay ñoo ngi fi mat nañ cent ñu dul bëre ñun suñu génération ndax dafa am ñaari yu nekk si diggante bi tey dafa am bu nekk si suuf nga xam ne loolu leen fay ñu dem bëre ji. ñooñu dañuy bëre heure bu nekk am ñu nekk ca kaw a kaw ñooñu dañ ciy tëgg ñaari combat ba ñett mais ñu nekk si digg bi. ñooñu la gaa dootul tëgg ndax xaalis boobu moo fa amatul tamit si làmb ji nañ waxante dëgg. promoteur yi amatuñ xaalis promoteur yi tuuti ñoo si am xaalis. war na rasulaay te ñu ko si am dootuñu ko si defati. moo wax la ko tey Aziz Ndiaye loxoom dafa feen ci làmb ji Gaston loxoom dafa feeñ ci làmb ji ko laa loxoom dafa feeñ ci làmb ji Aline Petit Mbaye loxoom dafa feeñ ci làmb ji gis nga tey jii nii gars yi dem stade dem ba Iba Mar moo fi nekkoon stade Jomba avant arena bi di am Essa Diomba jël benn mbër fay ko ay 1 million 2 million 3 million ñooñu dañ lay feesal stade dafay gën a yomb si yeneen mbër yi si yeneen promoteurs yi quoi comme tey mbër nga jël ñoom les deux fay leen yenn millions yi te lu booy di indi la gars yi di indi. nañ waxante dëgg quoi loolu moom moo am parce que booy la nangu man lees du ko nangu keneen du ko nangu parce que dañ lay ñëw nee la temps laa lay fay lu si des bien nga koy jël. loolu moo am si làmb ji lu may wax fu leer laa ko teg waxuma waxu caaxaan wala waxu lii am na gaa yi am boo waxee ñu bëgg la attaqué ak affaire yooyu noonu mais lu may wax kenn mënu ma si xoxatal kenn mënu ma si fexe ba ma daw si ginnaaw wala dara ndax dépassé naa foofu si làmb tey mun naa fi ñu fi nekk genn wàll yëpp di tëgg ba may bëree sax xamuñu li dugg làmb si setaan lañ am kenn xalaat ku si nekk promoteur comprendre nga kon xam naa si làmb lu bari lu ñu xamul parce que dama pratiqué dama ko tarbiwu mbapat ba ah ba âge laa nekk si làmb ba heure bi xam naa si lu bare bare bare bare bare bare bare tey day am nañ ci part de responsabilité non am nañ si part de responsabilité lu bari bu njëkk ba da nga naan boo daanee ñu ndon lay tëggal même boo daanoo promoteur da lay woo joxaat la combat donte da ngay wàññi da lay wàññi la luñ la fayal mais da ngay bëree ñu nga daan ñu war la yokk wàññi sa kase boo daanoo ñu wàññi sa kase amut loolu kon kay ça veut dire a quelque chose boo daanee sa kase du yokku boo daanoo sa kase du yokku sa kase day wàññeeku bu baax a baax kon kay am na lu xew ba pare am na si promoteur yi am sax duñ la wax wax ju neex xam nga wax ju neex tey jii nii Maguette Seck mun naa yoo ne ko man de bëggoon naa tëgg sa combat waaye sama doole bariwul mais bëgg ñu am jàppalante ba ci kanam kanam mais dañuy ñëw naan la noo yéen léegi lii moo xewatul lii fi nekk affaire yooyu noonu commencé la yow tamit nga gis sa bopp parce que tam ma koy waxaat sama rakk mbër yëpp nañ dem jàng ji métier nañ dem liggéey uti liggéey ku si am làmb nga dem bëre ji boo amul combat nga dem liggéey ji làmb ja Tyson taxawoon doon wax naan mooy sama métier ak bi taxaw bi am nii nii bokkutul ça fait du ma ko taay du wax sama rakk yëpp nañ dem jàng ji métier nañ dem jàng ji métier parce que làmb yàggul de fu mu lay ku si amul métier gis nga làmb fu mu lay bàyyee dara dootu la soxla dara dootu soxla parce que 45 ans bu la bàyyee mënutoo jàng ji métier kon ku si ku si amul métier nga dem jàng ji métier ba sa métier mokk parce que si ñëpp. ñenn ñi rek dina leen ubbil bunt am na ñaa xam ne dina leen ubbil bunt leen ubbil bunt te bu fekkoon ku mu ubbil bunt nga jàppale ko si des laa moom kenn ku nekk mun nga topp kenn mais kenn dimbaleetul kenn de parce que kenn ku nekk sa bopp daf la doy kenn ku nekk sa bopp daf la doy na booy dem jàng ji métier boo loolu ko mbër mu si am métier la si tëgg bu ñëwee dina am yeneen kenn mu lay waxal mais yenn mbër yi ñooy nekk buntu kër promoteur yi yenn mbër yi ñooy defal nangam xam nga yooyu bu yàggee respect dootul doot kenn dootul respecté mbër kenn dootu ko nawloo waa si si di dem seen kër yi lool lool lool lool da si nekk uh-huh.